maaleykum mbokk yi euh, di naqarlu bu baax a baax encore une fois génn bi nga xam ne président de la république génn na ko démb euh, pour génn te waxul dara en tout yi di xaar ci moom pour mu wax ko li àdduna bi yépp di xaar ci moom pour mu wax ko waxu ci dara donc ñun li muy woote muy concertation xaw la ko tuddee wala dialogue la ko tuddee jàpp nañ ne ñun demuñu ci yónneewuñu ci tooguñu ci table bi ñuy discuter loolu comme ni ko président Boubacar Camara waxee léegi li ñuy xaar ci président de la république mooy mu dëggal décision bi nga xam ne moom la conseil constitutionnel jël considérant 14 li mu ci wax leer na mooy président dafa war a organiser élection avant la fin de son mandat leneen lu mu def santuñu ko ko leneen lu mu def dilatoire la parce que ci considérant boobu conseil constitutionnel neewu ko demal nga concerté wu wala nga dialogué wu nga dialogué daf ko ne simplement administration autorité compétente yi nañu fixer la date ñun nag ci loolu la ñuy tënku foofu la ñu koy xaar donc ñuy wax ni dialogue boobu ak concertation boobu ñun duñu ci dem duñu ci yónnee loolu laa bëggoon wax du ma guddal te loolu mooy sunu position ah di wax nag ni am na ñoo xam ne ñu ngi xaar aussi ñu ngi leen di interpeller pour ñu wax communauté internationale gën nañ leen gën a bëgg a dégg ci li nga xam ne moo fi xew mais aussi am nañ ay kilifa fii ci réew mi ñu bëgg kilifa yi it génn wax ak président Macky Sall wax ak sénégalais yi ñu dégg bu baax a baax li nga xam ne ñu ngi koy def ah di leen dottali nuyoo ak yóbbante président wu sunu parti Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy du yàgg ci fan yu néew incha allah dina génn def déclaration wax ak sénégalais yi wax ak président de la république wax ak opposition bi pour jàppale ñu ci combat bi nga xam ne combat boobu la ñu nekk. donc di woote sénégalais yi mobilisation bi du jeex mobilisation bi dañ koy continuer tant amuñu lu ñu bëgg moo tax lundi ak mardi ñu ngi xalaat moom buy jalage ay concerté wu ñu nit dina am taxawaay boo xam ne daañu ko am incha allah lëndi ak mardi euh, collectif bi dina leen wax ban taxawaay lañ ciy am euh, comme ça ñëpp gën a mobiliser wu am na aussi ay mobilisation yoo xam ne prévoir nañ ko ci week-end bi ma bëgg ñëpp mobiliser wu ba li nga xam ne jàpp nañu ne jaaduwul ci réew mi élection bi ñu war a organiser à temps ñu organiser ko président le 2 avril mu jël ay bagaasam kii ñu sénégalais yi falu ñu réew mi dellu ci liggéey li ma wax démb laay waxaat tey waa Sénégal sonn nañu ci politique bu dul jeex li ñu soxla mooy dellu ci liggéey réew mi dellu ci jàmm réew mi dellu ci réconciliation nañu bàyyi caaxaan yi président de la république mënul continuer di tenir le pays en haleine comme ça nit ñi dañu sonn ke réew mi kenn liggéeyatu fi réew mi kenn doxatul soxla parce que élection tey la suba la ginnaaw suba la semaine prochaine la mais ba kañ bu yërëmul boppam na yërëm waa Sénégal ñi ko xam ne dañ ko wóolu jox ko lépp pendant 12 ñu bàyyi ko mu dérouler warul def li nga xam ne mu ngi koy def donc ñuy jàpp ne c'est pas encore trop tard pour pour qu'il se ressaisisse et nous voulons qu'il se mu bàyyi li nga xam ne ci la nekk dilatoire bi amul njariñ may sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah